mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi mu nangoo ak li làmb bañ combat bi dox ci diggante Moussa Gouye Gui ak Bass 2 Moussa Gouye Gui mbokk yi moo ñu féete à gauche moo ngeem moo ngeem bu lu njuli teg ci morso bu weex bi Bass 2 moo féete à droite ngeem moo vax bi takk ci morso yu xonk yi ak yu weex yeeg yi arbitre ba sifflé na Moussa Gueye gi bas na lewaatoo bi sori àndoon na Moussa Gueye gi ak bas na Moussa Gueye gi abit bi woo na leen moo wax ak ñoom arbit bi sëfle na Moussa Gouye Gui Bass 2 Moussa Bass 2 cokaas na léegi Moussa Guy Gui Bass 2 Moussa Guy doorante nañ eh Bass 2 door na ko waa ñoo ngi doorante ba doomu daan du ci am Moussa Gouye Gui Bass 2 jël na ko Bass 2 takk na ko da koy biij moo ngi koy biij yegg nañ ci génn nañ ci biti yegg si nañ eh waaw waaw eh, door na ko mais Bass 2 mi saf na de ñoo ngi xeex ba doomu daal du ci am ñoo ngi xeex ba doomu daal du ci am ñoo ngi dóorante Moussa Gouye Gui Bass 2 waaw jël na tànk ba jël na tànk ba eh, jël amul arbitre ba atana arbitre bi lu mu def nii jël amul de jël amul bàyyi leen ñu jël amul abit bi lu muy def nii abit ba na leen waaw waaw bàyyi leen ñu bëree Moussa Gouye Gui Bass 2 abit wax ak ñoom abit bi sëluwaat na Moussa Gouye Gui Bass <laughs> 2 rëj rëj gi foo di ko dégg Moussa Gouye Gui Bass 2 Moussa Gouye Gui Bass 2 Moussa Gouye Gui Bass 2 xale yi xeex nañu léegi xeex bu métti bëri nañu bëri bu neex Moussa Gouye door na léegi ku ñaari xale yi tey dañoo bëgg a jure alab lewu Moussa Gouye Gui Bass de Moussa Gouye Gui Bass de Bass de door na Moussa Gouye Gui jël na ba Moussa Gouye jël na tànk ba daw moom daan ko oh Bass 2 daal na ko daa jël tànk ba koo forcé Bass 2 daal na Moussa Gouye Gui Bass 2